daan na wala déet daan na ndaysaan Dakar daan na Louga xale ba yëngal na la ilaha illallah eh Dakar yëngu na Dakar a ngay yëngu waaw waaw la ilaha illallah arbitre bi sifflé waat na deuxième combat Dakar ak Louga Dakar centre bleu Louga rouge. Ndakaaru Ndiaye Jal Diop am na ndam léegi ci kaw luga Louga fàqat na Dakar bañ na. Ndeysaan Dakar Louga. Dakar Louga. Dakar Louga. Dakar Louga. Ndeysaan ñu ngi noonu. Dakar luga combat bi du mën a yomb. ndaysaan ñaari équipe la yoo xamante ni ku nekk mën naa wane boppam du yomb ndaysaan du mën a yomb ndaysaan du mën a yomb Dakar Louga Dakar Louga ndaysaan du mën a yomb dakaar Louga fàqat na ko Dakar fàqat na wala Louga fàqat na Dakar mu bañ ndaysaan du yomb lu nar a xew Dakar Louga fàqataan na ko fàqat lu am dara xewul arbitre bi nee na leen bëree ndaysaan arbitre bi nee na kaay leen bëree arbitre bi nee na leen du yomb kaay leen ndeysaan Dakar Louga ndeysaan Dakar Louga arbitre bi sifflé na avertissement pour Louga arbitre bi sifflé waat na leen bëre leen bëre leen fàqat na ko Dakar rëpp na benn oom tey final bi du yomb beneen demi-finale bii dox ci diggante Fatick capitaine bi di Doudou Sané Diourbel capitaine ba di Boy Faye ñu fas yéene laale dina garaaw dina metti dina yàgg dana mel ne ba ngóor jaaye mbaam la da nopp ya dem wër na ko ndombo Dakar wër na ndombo Dakar wër na ndombo daan na Dakar daan na 2 ak Louga Dakar Louga 2-0 Dakar Louga waaye ñu koy encouragé ñëpp koy tàcc ndax daa def trois combats trois défaites moom Tony te kenn xamu ko loolu ci wàllum làmb muy dem entraîneur bi di ko encouragé capitaine bi Serigne Ndiaye 2 di ko encouragé waaye Tony làmb gi làmb garaaw takkusaan bu ne am na ko moom Tony Junior tey bu ñëwee ci stade bi xàmmeewuñu ko ak lu làmb xàmmeewuñu ko mooy wane ni làmb beneen affaire la daa mel ni adversaire am ñëwut. ndaysaan daa mel ne adversaire ba ñëwul quatre-vingt-six kilos ndaysaan amuñu ko Louga amul quatre-vingt-six kilos Dakar dem na final am na trois victoires Louga Dakar am na trois combats trois victoires arbitre bi sifflé waat na quatrième combat baa ngi noonu dox ci diggante Dakar Louga mooy troisième victoire bi Dakar am na waaye bi. arbitre bi na. arbitre bi sifflé ñu ngi ci combat bi. gannaaw ba Thiès ñàkkee. Dakar Louga jàppante nañ laay la la daan na. Dakar daan na liw coo. de Dakar abattu Louga loo déedéet ayca arbitre bi mu ngi sifflé dox ci diggante Dakar ak ndeysaan Louga loo Serigne Ndiaye 2 ndeysaan Baye Paul numéro 2 Louga Baye Paul numéro 2 ceinture rouge Dakar centre bleu teq na ko ak ñuul Baye Peul boo ko gisee moo xees Serigne Ndiaye Baye Peul daw tànk ba Serigne Ndiaye li mu bëgg sol na ko Baye Peul Serigne Ndiaye de fu muy mujj Dakar Louga Serigne Ndiaye Dakar jiital ndijoor daw na plaqué bañ na Baye Peul bañ na daw na jëli ko Serigne Ndiaye Baye Peul Serigne Ndiaye de Baye ñu ngi fii ci drapeau chef de demi-finale Serigne Ndiaye ak Baye Peul numéro 2 ñaari numéro 2 yi kan doon o ñaari numéro 2 yi kan doon numéro o daw na jëli ko bañ na Baye ko Serigne Ndiaye wër ko ndombo Baye Peul bañ na Serigne Ndiaye lu na ko doon ko ci suuf oh! Serigne Ndiaye Deux Fass nee na doole nee na couronne bi la soxla ah kon fii daa am couronne tey ma yaakaar drapeau chef de l'État fi ne Doudou Sané nee na ko ñëw na Doudou Sané nee na Serigne Ndiaye ñëw na nee na ko fii maa ko moom Serigne Ndiaye Deux nee na ko gaay dama koy rey eh, waaye lii dina garaaw waay Sané Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané Boy Faye Boy Faye Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye Boy Faye waaye lamb gi Ndiaye 2 ndaysaan ma nga taxaw am na lu muy xaar xaw ma lu muy xool cey doole doxut jàmm ndaysaan ndeysaan